fas yéene delloowaat kàddu gi ak lu làmb yi xam ngeen ni di am solo. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateur Equivox TV maa leen di nuyu di leen di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen wax ne nag tey ñu ngi mercredi ah. mercredi la ñu nekk mu tombeek le 22 septembre 2021 li may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay liñ ñu indil ñu dikkaat ak yéen ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 22 septembre 2021 dañu ñëw xin ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doo reete ko yëglikaay bi nag tey xëtamu njëkk la ca xëy fesati moom moo di ki nga xam ne nii moom moo di yax Yaxya Jóob Yékini ak ka nga xam ne moo di rëg-rëg yëglikaay ba nag moo xëy tey di laaj maanaam fukki at ak juróom yi nga xam ne daal Yékini def na ko ci lamb maanaam mbir mbër mënu koo daan yëglikaay baa xëy tey samp ci ab laaj ndax ne na est ce que dina am ku ko égale wala bokk koo xam ne dina ñëw jaar ci tànk yooyu def la Yékini def kan moo ko man maanaam jiglikaay ba jàpp nees que rëg-rëg sax mën na lii Malick Thiandoum ma ngeen xam mu nekk fa nga xam ne moo di ca TFM moom nee na bu bëggee dégg-dëgg mission la boo xam ne ndii daal maanaam bu a mën a nekk la waaye na ko du yomb de nee na pour daa jàpp ne loo xam ne nii lu yomb la Zallo moom gis na ne bu fekkente ne nii mu mu di ko liggéeyee continuer na ci maanaam daal nekk caw yoonam nii di dem nee na bu yàggee ah nee na daal maanaam am na sens wala boog mën naa mën a nekk wala boog mu jaar fa nga xam ne ni moom la ka nga xam ne moom la yaxey jub Yékini jaaroon wala boog mu aw ca yoon wa Ibrahima mbay tamit wax na ci loolu ne na du yomb ndax nag ne na bu bëggee dégg dëgg moom pour def lu Yékini def Ibrahima mbay may entraîneur wala boog ab manager ne ca Fass Ndakaaru moom ne du doon lu yomb de parce que itam daal ne na dina difficile lool ci ki nga xam ne moo di rek rek ngir mu def lu mel ne ki noonu keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na tey toppal ñu ko muy Modou Lo écurie ba nga xam ne Modou Lo énergie ren moom soo bëggee dégg-dëgg ñoom itam seen i yëf wala boog seeni mbir barewut wala doxut sax nag la ñu yëglikaay ba xamal ndax trois victoire la ñu am quatre defet mel ni ki nag maanaam yëglikaay bi na nan ginnaaw Modou daal boo bëggee dégg dëgg daal maanaam écurie ba moom désert nga fay gis maanaam doo fa gis dara kon la topp ca gën a xam daal daa mel ni fi mu nekk nii boo bëggee dëgg-dëgg dëgër defu ko dara dara dara yëglikaay bi moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni kii noonu njug njuga ja ba nga xam ne nag superviseur la ca Rock Énergie mu nga xëy tey di wax ca wax ju mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moo Modou Lo moomu bëri nañu muy Balla Gaye numéro 2 mbay sàmm ma nga xam ma ngeen xam nag mu nekk école Balla Gaye wala boog moo dëkk Géejawaay nekk écurie Waalo moo xëy tey di wax ci parcours Balla Gaye numéro 2 ca mbapat ma ba fi nga xam ne ni yegsi na fa tey yëglikaay bi moo xëy tey ñëw seq ak moom waxtaan leneen loo xam ne ci tuuti yëglikaay ba lañ koy fekk mu mel ni ki nag Aziz Ndiaye moom ngeen xam ko mu mel ni nam ko tàmmali def rek maanaam ànd nag délégation bu mag a mag bërki dem dem ci Serigne Mountakha jébbali ko la nga xam ne ni daal mooy camion ci ay nag diw gu bari ak lu jëm ci wàllum ay vermicelle ak ay macro nag lépp loo xam ne daal des na ko soxla ca màggal ga Aziz moom jël na ca lu takkoo takku yóbbul ko sëñ ba maanaam daal jàpp ca màggal ga loolu la Aziz Ndiaye def mel ni ki nag ba mu muy dem moom àndoon nag Balla Gaye numéro 2 waaye tamit daa mel ni daal keroon kàddoom du kenn ku dul ka nga xam ne moo di xaadim sàmb sunu papa jooju ngeen xam ne xam ngeen ko bu baax a baax ca làmb ji loolu yëglikaay ba xëy ñëw dina ko wax ca tuuse ba tey bu nu continuer tournoi CEDEAO ba nga xam ne la 4 ak le 6 novembre daal yëglikaay bi ne na soo bëggee dégg-dëgg daa mel ni ca la fas yéene am daa mel ni ki nag ñaar fukki gaynde ak ñaar yoo xam ne fi mu nekk nii engagé nañ leen ci ñetti fan yoo xam ne baal regroupement wala boog stage boo xam ne dañ koy tëj lañ leen defal ñoom nag gën na caa fees général Malika nga ca biir booy fay nga ca biir waaye ka nga xam ne ni tamit moom moo di Mamadou Faye ordinateur mu nga ca biir ak yeneen xale yoo xam ne daal bari nañu yeneen ñoo xam ne tamit stage lañ leen di defar muy quatre mille yoo xam ne daal lu jëm ci wàllum gàddara brosa daal lañ leen defal mel ni que nag seen cérémonie booba wala boog mbir ma nga xam ne ci lañ nekkoon daal alxames ji daal la ñu koy tëj fa nga xam ne moo di ca Léopold Sédar Senghor nga nga xam ne fa ñu leen dalaloon beneen yëglekaay muy ba nga xam ne ni moo di les arènes ñëw na tey dinu wax la nga xam ne nii daal moom moo di la xew wala boog mu indil ñu Modou Lo mi nga xam ne daal yëglikaay bi daa xëy tey samp laaj ci moom nee na Modou ndax la dal Eumeu seen ndax Modou mën na koo tëb mu bañ koo dal maanaam nekk roi des arènes premier combat ba nga bëri nga ñàkk ko nee na loolu est-ce que Modou mën naa xëy tey romb ko wala boog loola bañ koo daal yëglikaay moo xëy ñëw tey dalal ko wala boog dinu andil lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom Bombardier la xëy tey di wax ca moom wala boog moom lañ fa dalal muy wax ca Bombardier muy mbay booy ma ngeen xam ne moom moom coach sa Bombardier la di entraîneur am daal maanaam lay xaar baal la ca Bombardier daal la xëy tey dina ko wax am na ñoo xam ne nag ay promoteur la ñu woon nekk ci làmb ji wala boog am na ci ñoo xam ne sax nekkoon nañ fi nekkatuñ fi am na ñoo xam ne moom ba tey ñu ngi ci làmb jooju di continuer di exister yëglikaay bi nag nee na boo bëggee dégg-dëgg promoteur yooyu daal am na ci ñoo xam ne daal làmb jëm mu leen faussé bokk na ci Aline Poti Mbaye ma ngeen xamoon mu jiite Action 2000 mel ni que nag moom daa mel ni daal fa mu mujje ca làmb ja mooy mujje toog Europe daal exilé jàpp boppam ndax ay jafe yoo xam ne làmb moo ko ko yóbbee Alaaji Njaay Roos tamit doomi Dudu Njaay Roos yëglikaay bi nag boo bëggee dégg-dëgg moom combat ba ko giree suuxal ko mooy Tafa Gueye ak Eumeu Sène ka xam ne tamit moom moo di Ama Yuba Jaan tamit moom itam ab promoteur la woon ñëwoon ci làmb ji moom tam la ko suuxal daal maanaam la mu gàddu woon moo diisoon lool ba àttanu ko mu mujj daal ànd ak loola jëm ca suuf keneen koo xam ne tamit la ko indil ay jafe-jafe ci làmb yëglikaay baa koy wax ne du samay wax muy ko Nicolas yëglikaay bi na na xeexu promoteur yi daal moo ko andil maanaam ay jafe-jafe kenn koo xam ne moom mbir yooyu donte moo maanaam daal mënoon nañ ko xaar ca moom zappe nañ ko wala boog rëcc na ca mooy Gaston Mbengue yëglikaay bu mu xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki doon kenn koo xam ne ni moom ci làmb ji la ne muy naar Touré wala boog mu nekkoon fi daan bëri bali yàgg mu dem États-Unis toog fa muy doomi tubaabu jor moom nag fi mu nekk ni daal dikkaat ci làmb ji bëre la bëgg te ka mu sampal du kenn ku dul Malick ñaa ma ngeen xam mu nekk ca yoof jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay tey loolu lañ ñu xëy indil mu mel ne ki nag ah bu ñu dikkee tey ci plateau bi daal dégg ngeen li ñu yëglikaay di moo xam sunu làmb la moo xam les arènes la bu fekkente ne nag yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb la tey xëtam mu njëkk yaxa jub yi ki moo ca gën a fës ak Omar Kane rëg yëglikaay bi nag la mu xëy sampab laaj lay laaj yi ki ni fa mu jaar 15 ans ya nga xam ne def na ko ci làmb reñe fa est-ce que rëg-rëg mii war na koo mën a égaler maanaam daal def la yi ki ni def loolu la yëglikaay bi xëy tey sampab laaj di ko laaj yi ki ngeen gis noonu gis rëg rëg mu gàddu ak am ndënd xam naa loolu mooy ndëndum cóol am cóol la yaakaar naa am na ñoo xam ne nag joxe nañ ca seen xalaat Malick Thiandoum wax na ca Zallo wax na ca Ibra Mbaye wax na ca ku nekk ak na nga ko gisee waaye ñoom nag boo xoolee wax ji parce que mën nga ne benn la rek ndax Thiandoum la mu gis mooy mission la boo xam ne nii ah mais très difficile waaw Zallo tamit jàpp na ne loolu ah mën na nekk parce que mu ngi ci lancé bu baax Ibra Mbaye tamit jàpp na ne du doon lu yomb waaw li ma ci bu boo tënkee wax yooyu yëpp nag li ma lay jox mooy que rek ça veut dire que Yékini la mu def yombul pour mbër defaat ko maanaam 15 ans yoo xam da nga ko bëri ci arène bi te daanuñu la dina jafe rëg-rëg nag mu ngi ci yoon loolu mooy li am ndax boo xoolee mu ngi bëri bopp ba tey amagul benn defet yaa ngi dégg ay nombre de combat boo ko dee calculer moom rëg-rëg li mu lay jox ci combat yoo xam ne bëri na ko mu ngi bëgg a bëri te yàlla dimbali na ko ba amagul defet maanaam mu ngi ci 13 victoire ak 200 verdict muy 15 combat yaa ngi dégg amagul na 15 combats te bàyyeegul lam parce que xale bu ndaw la te Yaxya ki Yékini boo xoolee ay nombre de combats ay nombre de victoire mu ngi toll ci 19 victoire de défaites benn match nul kon loolu boo ko xoolee 22 combats la bëri kii mu ngi nekk gu ci 15 combats te amagul defet ça veut dire que kon ah bu dee daal liggéey waa liggéey daal mooy mooy mbir mi moom nag ndax mu ngi liggéey wala liggéeyut moom lool nekk lu ñuy laajte ndax yaakaar naa bu nekkoon te ne kuy fooyee làmb la rëg-rëg kon ba tey daanoon na ndax barina na fekk ay mbër yoo xam ne ay mbër waada lañ yàlla may ko ci ndam mu ngi jëmaat ci combat nag diggante mag rëg-rëg mais li olof di wax rek yónni yàgg la ñuy def incha allahu rabi bu ñu nee ba ci ndax dina égale Yékini wala déet nañ bàyyi ba ci kanam waaw loolu moom mooy li jar a wax Modou Lo ak ñoom itam daa mel ni seen mbir doxut rena 3 victoires 4 défaites yëglikaay bi war ñu noonu Modou Lo ak bi di Rock maanaam ren ñetti ndam la ñu am ak ñeenti defet sunu làmb xëy jàngatal ñu lool mel ni ki nag euh, ki nga xam ne moom moo di Ndiouga Dia wax na ci waaye yëg likaay bi li ñu ci gën a daal dana daa daa mel ni ginnaaw muudloo daa mel ni désert ngay gis soof maanaam la fa ne est-ce que dëgër na wala dëgërul waaw parce que tamit bon euh, ah xawma lu xew daal waaye staff technique bi war nañu gën a mën a liggéey ci Rock Énergie ba génn génnewaat yeneen muudloo ndax écurie bi amoon na benn moment boo xam ne bëriwul na ay mbër yu amoon tour lool jamono yooyu Modou Lo ngay dégg di dégg Baye Peul di dégg super jamono di dégg yenn ay dolf ah bëri woon nañu macha allah mais nag bon xëy na ak saison bii ni mu meloon ak yooyu dinañ gën a liggéey ba nga xam ne li ñëw suñu kanam Rock Énergie dina gën a mën a taxawaat pour wane boppam feneen foo xam ne nii ah, tournoi tournoi CEDEAO bi ngeen xam ah nga xam ne la 4 ba le 6 novembre lay commencé yëglikaay bi nee nag boo bëggee dégg-dëgg Sénégal regroupé na ñaar ñaar fukki gaynde ak ñaar 22 lions la ñu dajale fi mu nekk nii fi nga xam ne moom moo di ci arène nationale ngir nag fas yéene defal regroupement bu toll ci stage boo xam ne daal 3 jours lay doon. tey ci mercredi yaakaar naa lay commencé war nañ ñu général Malick ak booy Faye bari na ay mbër yoo xam ne ni bokk na ci euh, ci vingt 22 yooyu ndax am na ay léger am na ay euh, léger bu ko waxee moom mooy euh, kii maanaam ñi nga xam ne ni seen kay seen ay kilo ah ba kiiwul waa parce que léger yi ana ana ana léger yi sax waa am na ay léger am na ay lourd daal waaw waaw am na 65 kilos na 80 kilos am na 100 kilos am na 100 pile de 100 pile de 100 kilos ñooñu la ñu regroupé actuellement waaw fas yéene nag tànn équipe bi nga xam ne mooy représenté Sénégal mais booy yi ma ci gis yëpp wala mbër yi ma gis yëpp ñu bi ñu tudd ma gis leer foofu seen tour macha allah bu ñu tànnee ba génn tamit. tànn mënta ñàkk rek waaye ñoom ñëpp ku ci ne mën nga représenté Sénégal loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey xamal 80 litres yi nga xam ne ni tamit dañuy boucler seen stage su 11 jours yi nga xam ne ni moom la ñu doon def ci cérémonie jëm ci wàllum Euh, fa nga xam ne moom moo jëm ci wàllum garde rapproché yi nga xam ne moom la Bamba moom di doxal mu mel ne ki nag ci alxames yi la ñu tëj loolu loolu yëglikaay bi xëy na dikkal ci muy lu am am solo loo xam ne Bamba boobu tamit gis nañ mu di ko def waaw jëmale ko ci lu jëm ci wàllum mm, stage pour mbër yi boog pour ñu am métier am beneen liggéey bu bokkul sax ak làmb te loolu tamit dafay am solo arène les arènes bu ñu fa demee Modou Lo lañ fay fekk waaw moom tamit yëglikaay baa samp laaj di laaj ndax dina def lu raw li ëmma def bu ñu ko waxee nag mooy ëmma ku ne xam ne bi mu daanee Bombardier nekk roi des arènes bi mu dellu see premier combat am premier sortim ak couronne am Modou Lo da koo daan nangu roi des arènes bi est-ce que Modou moom lool dina ko mën a dina ci mën a mucc wala du ci mën a mucc loolu tamit li ma waxoon sànq rek laay wax yónni yàgg rek mais làmb moom da di saa yu ci ñaari dem sport sax laay wax jàppal ne lii moo mën a am rek victoire mën na féete fenn fi wala défaite féete fenn fi wala ñu séddoo lenn muy match si te combat Ama Baldé ak Modou Lô moom man Babacar de ba ba mu may ba mu may bett incha allahu rabbi gëmuma ne li dina ci am faw daanante am ci waaw gantaan nag couronne ba ndax day des foofu wala day dem foole ba tey loolu ci ñoom ñaar lay dépendre ak liggéey ba ñuy liggéey ak bés boo ko yàlla war a jox ndam li Bombardier li koy xaar digganteem ak Balla Gaye 2 loolu ki koy xëy di wax tey hmm? Hmm? wa waaw waaw ki ki ko xëy daal di wax waaw li xaar Bombardier wala li xaar Balla Mbay Booy daal moo xëy di wax loolu Mbay Booy nag ki nga xam ne ni moom moo di Bombardier mooy entraîneur moo koy tàggat waaw mel ni foofu itam xam naa daal combat boobu itam bëri na coow lool waaye xam naa ne ñoom itam li ma waxoon laay waxaat rek Balla ak Bombardier daal xaw ma ku ci ne lu lay xaar waaye xam naa daal mosuñoo jël avertissement ñoom ñaar ci da ngaa dellu ginnaaw loolu moom masta am waaw ay promoteur yoo xam ne nekkoon nañ fi te làmb faussé leen ba ñu am ci jafe-jafe yëglikaay bi xëy nañu ci tey limbal ñu ci ki nga xam ne nii moom moo di euh, Aline Petit Mbaye Alaaji Njaay Rose Alaaji Njaay Rose ku ko xamul yoo na fi ñëw boo bu duggoon ci làmb ba tëggoon fi Eumeu seen ak Tapha Gueye seen combat moom moo ko waroon tëgg far ay jafe-jafe am ca ba mu ko tëgg di doomu Doudou Ndiaye Rose Badiane Amadou Badiane tamit déggoon nañ ko fi moom tamit jotoon na fi dugg ci làmb waaye moom tamit la mu gàddoon yëgle kam ne moo diis Luc Nicolaï euh, maanaam xeexu promoteur bu ñu wax ne xëy na mooy financièrement yooyu yëpp waaw di ay jafe-jafe yoo xam ne ni la ay promoteur ay problème ñi dem ci prison ñi bàyyi ci làmb jàppal bàyyil xëy na ka ci rëcc yëglikaay ba ay wax mooy Gaston Mbengue ñu nag bu seen ñoom ñëppay rëcc parce que ay doomu Sénégal lañ te ñu jëlee seen xaalis mënoon nañ ko dugale feneen mais buñ ko dugalee ci làmb bu ñu sañoon dañ fee des pour mën a service seen réew waaye nag ah gis nga fañ mujjee ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla dellu siwaat ci si nga xam ne nii mooy seenu réew ci ña ca génn réew mi ñi fi des tamit yàlla jubbantiwaat seen i mbir ba ñu teguwaat ci yoon bi ba def li ñu bëggoon def ci seen réew mooy di jàpp ci seen emploi wu dëkk parce que loolu lu ama am solo la loolu yëglikaay bi mu xëy ñëw tey di ñu wax lu mel ni ki noonu moom les arènes fañ koy tëje mooy naar Touré daal moom dafa mel ni ñëwaatam ci làmb gis ngeen ko noonu mook Malick Niang que mu bëgg a bëreel du kenn ku dul Malick Niang bu yoof Malick naar Touré nag mooy doomu tubaabu joon dem si yàlla sa waaw way juróom nekkoon ci làmb di bëre ba yàlla jël ko moom itam mu daan bëre ma mais benn moment gis nañ ko mu toog at yu baree bare bàyyi làmb nekk fa fa nga xam ne moom moo di ca États-Unis Malick na loolu de at yu bëri ba ko amaa daane ba tey bëriwul waaw muy ñaar ñépp waaye daal Naar Touré moom bëre la bëgg combat daal lay wër fi nekk nii te Malick Niang daal la jàpp ne mu la war a bëreel Aziz Ndiaye tamit comme fa ñu foofu la ñuy parce que acte bi mu def am na solo wala bi mu defati sax ndax loolu gis bu nekk dina ko def maanaam su màggal jotee dina jël li nga xam ne ni moom la am ci li muy liggéey ci alalam yëkkati dem yóbbul ko xalif général ba nekk tuuba yaa ngi dégg bari gi dem mu def ko ci këram sëñ Muntaxa muy ay nag muy diwlin muy ay macaroni ay vermicelle ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ànd naag délégation bokkoon na si Balla Gaye 2 bokkoon na ci tamit ka nga yoroon kàddu ga di suñu papa Xarim Samb muy acte boo xam ne bu rafet rafet la waaw démb rek ñu ngi déggante ndeysaan ma di ko remercier ndax loolu dafa am solo lool parce que réew mi loolu moo lay wan ne ñun ñëpp benn lañ parce que tamit ci kër la bokk moom Aziz waaye daa jàpp ne li mu yor sénégalais yi ñoo koy jariñoo te doomu Sénégal la te gëm na ne fu fu mu ci doon rek muy Touba muy Tivaouane muy Ndiassane muy na muy na ma ba ca jàng ba foofa dem rek lu baax dong lañ fay sàkku kon bu bés jotee ku mën a jël lu baax yóbbu leen ku dimbali tamit lu baax donc nga cay jëlee kon al amin daal loolu ngay def am na solo trop ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla yokk kàttanal la barke yonente bi loolu lañ la ñaan sa société yooyu ak société yi nga xam ne parce que tey wala na mbay sa wewu tànk ñun daal boo xam ne ubbi nga société fii ci réew mi ñu ngi ñaan yàlla yàlla na société boobu yokku parce que bu yokkoo réew mi yokku ndax ay emploi ay ña ngay emploi ay sénégalais la ñuy doon kon état bi encore encore yi nga xam ne nii ñu ngi jéem a yëngutu ci wàllum entreprise moo xam même ñu ne ci secteur informel ba sax tey employé ay nit ndax mën ngaa romb tey biir marché Salem wala Petersen nga gis gaa yi teg ay mbaar gis nga mbaar yooyu nga gis noonu noonu mbaar ma na muy tuuti tollu nii mbaar ma famille la yor di leen dundal ka kaca nag di jaay yi daal wala ay yére wala lu mu mën di jaay wala ay saak jàppal ne famille la yor di leen dundal te ñun ñëpp ci réew mi la ñu bokk kon nañu dooleel doomi réew mi yi dëkk ci réew mi li ngay dàq ji euh, kéwél mu jëm ci àll ba nga dàq mu dugg sa kër mu ëpp solo loolu nag état ci Sénégal ñoo ci war a taxaw jàppale doomu sénégalais yi yaa ngi dégg waxuñu ko nag pour contre ku fi dëkkul noonu non waaye nag dafa am loo xam ne lu gën a jege gën a yey waaw balaa ngay jàppale ji ca biti defe naa li nga yor ci sa biir nga defar ko ba mu jag nañu fexe sénégalais yi ubbi fi entreprise moo xam ab milliardaire la wala kay taaba taaba ci cinq mille ak dix mille francs ñu jàpp jàppale ñëpp ba ku ci ne mën a yor sa bopp mën a yor sa fami bu keroogee état bi dootul sonn kenn dootul sonn loolu nañ ci bàyyi xel moo gën xuuxalante bi yàqalante bi ak yooyu yooyu amul njariñ yàlla nañ ci yàlla musal yàlla di ñaan jàpp Sénégal safar gi yàlla nañ ci dem ci jàmm ñëwaat si jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa